yaraw ci mboolem lu yaay Alaaji Fallu saa soo leen bëgg a xibaar yu wóor te gaaw boole koog wér gaaw leen gaaw abonné seen chaîne bii di Ndindy Actu waaw da ngay bës cloche bi def abonné lépp mat bu ngeen bëgg te également ay publi reportage ñu couvrir également seen ay événement lu mu si mën a doon événement religieux politique société maanaam daal xew-xew jàpp leen Ndindy Actu mooy chaîne bi gën a gaaw waaye tamit gën a disponible ngir seen i xew-xew woote leen gaaw si service commercial bi di 77 693 90 46. daara kooki daara la joo xam ne nii Euh, fii ñuy wax ak yéen ñu ngi ci quatre mille cent treize ci ay euh, élèves yoo xam ne nii li leen yor lépp euh, service yi lépp gratuit la seen lekk seen naan seen tëdd seen paj seen njàng lépp kenn laaju leen ci dërëm benn parent du fay inscription du fay mensualité loolu kon xam ngeen ne dafay laaj ab budget bu rëy rëy la rëy la te dañuy ndékki di añ di reer kooku budget bu rëy rëy la moo tax ñi nga xam ne ni ñoo fi jànge woon ba génn fi ñoom ñooy euh, dellusiwaat ànd ak seeni mbokki jullit ñuy defal yàlla ñu bëgg lu baax di jàpp bis boobu di fi daje si li ñu am ci ndimbal ñu indil ko sëriñ bi mu di ko dimbandikoo tey jii nag looloo taxoon bi ñu wootee ñu woowoon jullit yi ñëpp ak fu ñu mën a nekk ci biir Sénégal ak ci biti Sénégal ñu ñëw fekke si bis boobu nga xam ne ni bisub alquran la buñ ne daaraa woote mooy alquran woote kon bis boobu moom la ñu woote woon tey bis bi nag saa buñ ko jàppee dañ koy wutal thème ndax xam ngeen ne du dañuy woo nit ñi rek ñu ñëw daje daal di euh, dem waaye buñ ñëwee tamit dañ fi war a yóbbaloo moo tax buñ ko jàppee dañuy xool euh, lan la nit ñi mën a jëlee ci ndaje mi buñ ñëwee thème boo xam ne nii bu euh, dëppoo la ak fi jamono toll buñ ñëwee ñu traité ko jàngatandoo ko ensemble nit ñi mën cee jëlee lu ñu yóbbaloo ba déwén ba bu ñu demee mu dana fenc seen dundiinu àdduna dana feeñ ci seen dundiinu diine ren thème bi ñu jàppoon ñu ñu xool ne toll nañ ci jamono boo xam ne nii am nañu crise ci wàllu yar ñu jëloon thème boobu li ñu tuddee éducation islamique ak tarbiyatul islamiyya amama tahaddiyatil muasira l' éducation islamique face aux défis contemporains Euh, moom lañ jëloon xam ngeen ne traité nañ ko traité ci anam yu ama am solo ci angle yu baree baree baree bari nit ñi tamit wax dëgg yàlla jàpp nañ ne ndaje mi am na réussite bu mag a mag a mag ndax nit ñi euh, boo wootee ñu wuy si la rek ci anam gu gën ko bëggee woon ba mu jéggi sax anam gën ko doon séentoo da jàpp ne loolu wax dëgg yàlla réussite la te nit ñi jóge nañ ci wall gune ba mbooloo mi jéggi na fi ñu ko doon fooge te itam am nañ yaakaar nañ ñi ñëw itam euh, jëlee nañ fi li nga xam ne nii moom lañ doon xaar ci ñoom bu ko defee kon loola moo doon euh, sababu woote bi moo doon sababu ndaje mi ñuy sant nag ñi nga xam ne nii ñëpp ñëw nañu euh, dagg ay di distance yu sore sore sore ñëw wuy si ñu leen di sant di leen masawu coono coono yi ñëw bi ak coono yi dellu bi yëpp ñu leen sant di sant képp koo xam ne nii rek jàpp na ci ndaje mi ba mu réussir Euh, moo xam ak fu mu mënti bokk moo xam presse bi la wax dëgg yàlla ba yëf yi tàmbalee ba léegi euh, noppaluwu leen ñun nag yéen ci préparation yi la woon ndax xam ngeen nañ ñu ngi doon def ay émission ci télé yeeg ci rajo yi yoo xam ne yëpp dafa aju woon ci préparer jour bi loolu yëpp ñu ak yéen ñoo ko àndoon ñu leen ci sant di leen ci gërëm di sant autorités yi nga xam ne nii ñoom la ñu àndaloon liggéey bi di ñu di ñu ci jàppale ci kéemtalaayal euh, la ñu mën moo xam wàll mën a féete rek di sant bu baax a baax nag ki nga xam ne ni moom lañ ñëpp fekk si woon muy sëriñ bi sëriñ Maxtaar Naarloo nga xam ne ni liggéey bi moom la yàlla nattoo mu yanu ko ñu koy ñaanal di sàkku kenn ku nekk itam ñaanal ko ndax li ab yan la aw sas la mi ngi ciy def kemtalaayal kàttanam mooy guddeem mooy bëccëgam amul noppalu amul dallu amul du tukki amul fenn fu muy dem léppam da ko jël jox ko liggéey bi kooku Eh, jaadu na jullit ñëpp jàppale ko seen kéemtalaayal kàttan waaye jaadu na jullit ñëpp itam di ko ñaanal ngir yan boobu nga xam ne ni ñëpp la ko yanul mu yenni ko ko ci jàmm mu àggale ko fa mu jëm ci jàmm kooku ñu ngi koy sant di ko ñaanal di sant équipe bi nga xam ne ni ñoo ànd ak moom liggéey boobu yépp eh, di ñaan yàlla mu musal liggéey bi waaye itam fu daara nekk itam nag daaray kokki mooy daara yépp fu daara nekk rek ñu ngi ñaan eh, yàlla mu taxaw daara joojo taxaw alquran taxaw waa daara eh, loolu mooy li nga xam ne ni moo aju woon ci bis bi solos bis bi ñuy yemale foofu kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullah yaraw ci mbooleem lu ay alaaji Fallu saa soo leen bëgg a xibaar yu wóor te gaaw boole koog wér gaaw leen gaaw abonné seen chaîne bii di Ndindy Actu waaw da ngay bës cloche bi def abonné lépp mat bu ngeen bëgg a tey également ay publi reportage ñu couvrir leen également seen ay événement lu mu si mën a doon événement religieux politique société maanaam daal xew-xew jàpp leen Ndindy Actu mooy chaîne bi gën a gaaw waaye tamit gën a disponible ngir seeni xew-xew woote leen gaaw si service commercial bi di 77 693 90 46